kër Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ci lépp luy jaar luy jëm ci biir kër gi balaa agsi ci moom lay njëkk a yam kon la muy jànkonteel ci metit ak piis ci bu ñu laalee jëwriñu Serigne Touba radiyallahu anhu di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa kenn xamul nu muy mel ñoo ngi koy masawu bu baax di masawu mboolem rakkam yi ak njabootu Serigne Touba gi gépp ndax ñoom xam nañu seen jëwriñ jii di Serigne Touba di sunu sang bi fi mu tegoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na lépp lu laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ni na muy mettee ci moom ak na mu ko yëgee moom Serigne Touba jéggi na dayo ndax dafa waxoon ne deretam ak njabootam ak ñoñam ak doomam yépp jox na ko muy ak njot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon képp kuy dereti Serigne Touba wala ngay ñoñ Serigne Touba لا أسكنه تسرين توبة رضي الله عنه نجتوك جنان تبي صلى الله عليه وسلم لا تسرين توبة جهون كن بني لا لا كم لا جهون أن جتام ورتو أم سقو ورتو أم أبيج يج لول متي لغتار بيج دايو مرحلة قتالة شباب تسرين سيد المختار أن بالم جبر الشيخ القديم رضي الله عنه جب أن نجتام جبر في طريق بس بس نيجي ماسة دي أم متي تكتيسو ري ري ري ري فسيني خمال سنو سانغ بسرين توبة إيه ñun ñu joxe woon ak njot day fas nañ yéene nekk ak njot ba faw fas nañ yéene nekk ak njot ci deret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab daram ci diineem ci pas-pasam ci alquraanam ci sunnaam ak ci léppam loolu mbokk yi mooy li sabab sunub daje fii ñun ñëpp ginnaaw buñ ci amee ndigal ndax lépp lu ñu yëngu ci ndigal lañ koy yëngutu da dégg lu bari ci rege yi diw ñoom war nañoo wax diw ñoom war nañoo wax di joxoñ kilifa yi lu baax ñuy xam ne ne rek kilifa yi day fi ñu nekk ñi ngi fi lii ak feeñal la rek waaye ñoom jamono ju nekk seen dara seen pas-pas ak seen pësséef dara du ko soppi ci lislaam ak lépp lu laal lislaam rawat na sang bi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje bi nag mbokk yi kàddu gi ñu dénk ñu yore ko danañ ci ñëw ci kanam incha allah taala kilifa yi fi teew ak kaddu yi ñu war a indi ñun dañoo sàkk woon ñu ubbi indi ay kaddu yu leeral ci li sabab ndage ku ne xam na ne fan yii ñu génn àllarba di bërki démb di bis bi gën a tiis wala bis bokk ci bis yi gën a tiis ci jullit yi ndax mbooloo moo xam ne benn journal lañu am di ay juif yu nekk ca France ñu nekk ñoo xam ne. dañoo tooñ jullit ñépp jaare tooñ gi ci ki ñu gën a fonk ki ñu gën a warmaal ki ñu gën a sopp ki ñu gën a màggal muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaare googu nag jaare maa la ndax nëbbutuwuñ ko dañ koo waaj biñ daataan tàmbali dañ koo wane it wane wu yéeme woo àddina bépp it ne leen kaay leen ñu ànd daganal tooñ gi ñuy bëgg tooñ jullit ñi waaj tay woowu nag di waajtaay wu yéeme xam naa danañu leeral tuuti mbokk yi ndax ay nit lañ ca média yi ay war nañoo ñun am ay suñuy xalaat yu ñor ba bu ñu média joxee ñu def suñuy analyse nag en tant que ay nit yu am ay xel moo tax ñu bëggal indi benn jàngat bu gàtt ci ñoom liñ sukkandiku ba ne ci la ñu jaare publier 3 millions exemplaires yooyu nga xam ne moom lañ publier ba ci démb di ci def ay caricature ci yonent bi sallallahu alayhi wa fan lañ sukkandiku nee na ñoom xam nga ku ne xem na attaque bi nga xamee ne ñaari nit def nañ ko ci Charlie Hebdo moom nga xam ne mooy barab boobu nga xam ne fi lañ dañoo baaxoo woon ñoom caricature yonent ñaari nit ñooñu danañ ñëw ci ñoom ak képp ku seetaan vidéo yi ndaw si génn ci ñoom it rëcc li mu nett li nañ action yi nekkoon ci biir ni la demee en tant que ay nit nag ñu yoon ci ay xalaat ba xam loolu yaru na maanaa wala déet journal boobu ci boppam dafa nekkoon ci ay difficultés économiques yu méttee métti liñ daan publier ñu di jënd jamono yi amoon nañ jafe-jafe lool ci publier ko ca ku ne xam na ne euh, jëmmi yahud yi juif yi seeni pexe ak leen alal jaral ba ñu ci dara ñoom ngir am alal ba ñu ci dara kon pexe yu ne mën nañ ko pexe waaye bu ñu jàngatee li xew ñaari nit ñu armé ba fees yor ay ngànnaay yu xareñ yu yéeme ñëw ci France nekkuñ ca àll ba waaye ca xolub France muy Paris fa lañ nekk ca Paris ci boppam it ca xolub Paris lañ nekk làqtu ci guddi du ak lëndëm bëccëg lañu dox agsi ci barab boobu dugg ci barab bi fekk leen ñu nekk ci seen réunion boo xam ne rédaction bi ñoo ko doon def ñu ñëw rey ca fukki nit ak ñaar génn ak seen sago dawuñu yàkkamti wuñ ci liñ doon def te bi ñuy rey fidèles yi ñu doon jëfandikoo fidèles yu yéeme la fidèles yoo xam ne mën naa génneendoo seize coups ci benn yoon ñoom ñu di ko jëfandikoo ci ak xereñ ndax coup par coup lañ doon tiré maanaam ñoom ñu maîtriser arme bu ñu yoroon la du ñoo xam ne rek dañoo fortaat arme bi di ko jëfandikoo bii ko jëfandikoo ba noppi génn ak seen sago suñ doon doxee nañu xam ne police intervenir la waa France xolu France ñu interpellé police mu ñëw intervenir xanaa loolu lu mu gàtt gàtt fukki oto lañ daan gis wala fukki oto juróom wala ñaar fukki oto waaye benn oto moo ñëw def si intervention bi oto bi ñëw def si intervention bi fi mu fekk gars yi circonstance yi mu fekk gars yi amuñ woon fu ñu jaar génn bu jàkkaarloo ak ñoom bu ñu gaaral oto bi tëdd ci biir gars yi amuñ fu ñu jaar génn ndax mbedd mu sewloo moo xam ne ñaari oto muñ faaroo mat bu ngeen demee xool leen ñu leen wax bu baax a baax bi bi gars yi taxawee jàkkaarloo ñoom bàyyiwuñ fa oto ba waa waafuñ ci biir oto bi waaye dañoo arrière gaa yi topp li ñu arrière ba génn mbedd mu saw mi bàyyi gaa yi ñu dem mbokk yi loolu ay xalaata a ngi ci intervention police ci benn oto xalaat a ngi ci libéré gi ñu libéré gaa yi mënoon nañu ne tañ ci côté boobu ba na bàyyi ñu jën ay xalaat ngi ci en tant que ay nit xalaat leen yaakaar naa war ngeen a am ay xalaat bu loolu jàllee mooy ñoom ñi defoon doo def affaire bi attentat yu mel noonu kenn du ko def di yor say pièces ci lu loo xam ne mënut a ñàkk ci lu loo xam ne mënut a ñàkk lu mel ne avion nga xam ne bala caa dugg waaye bu dee lu mën a ñàkk doo yor lu mel noonu ñu ne nag ñoom oto bi ñu nekkoon biñ ko yoree ba wàcc wàcc ko dem di jëla beneen oto ci lañ bàyyi seen i pièces foofu ci oto bi yi ndax ndax xel nangu na ndax xel nangu eh? bi ñu demee ndax ñaa ñooñe ñoo def attentat bi ndax pièces yi ñu ware ndax ñooñe ñoo def attentat bi lu mën a xew ci ginnaaw wallahu alam waaye daal en tant ñuy xalaat mbir mi man bi ma ko gisee ba jàngat ko daf maa jox 11 septembre mi xewoon nga xam ne avion bu dal ci kaw ab am taax takk ba boîte noire ba kenn musia gis dara lépp seey ñu ne gis nañ passeport yu saoudien yi ko def waaye waaye waaye ginnaaw nit ñaa lakk ba jeex ak boîte noire ba ay kayit nu mu fay desee ay daa am daa am ñoom dañoo am loo xam ne bu ñu ko waajalee faw ñu am luñ ko daganale faw ñu am lu ñu jaar jaara daganal ko li ñuy jaara daganal ko nag ñooñe luñ leen lu mën di xew danañ def loola lu ca mën di juddoo ci ak dee mën nañ koo def ndax ñoom alal lim leen jaral kenn xamu nu mu loolu nag ni la demel demu nonu ala kulli xaal yéen xalaat xalaat leen tadabbaru ya ulul albab bu ko defé nak mbokk yi bi lol amé ñu publier li ñu publier dal ci caricature yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moom bi sallallahu alayhi wasallam sallam kenn mënu ko ñaawal kenn mënut yak daram yàlla moko ñongal ñoŋal barra'ahu albadiu min khayri jamal wa saanahu alquduusu an ghayri kamal sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na yàlla mi nga xam ne moo moo moo def moo def ibudaa bi maanaam moo fent jëlut objet fenn ak fenn lépp lu am ci mbind gi yàllaa ko fental boppam bi mu fentee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu taarawut da ko ci génn bokku ci yàlla moom nga xam ne nag mooy aji sell ji moo ñaŋal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ring mata di du ko jege loolu yàlla moo ko doon defal boppam bi yonent bi muy dund lépp lu xewal lu yéefar yi masa nas ay caricature lañ daan def ndax daawuñ weesu ne am njabar a ngi nii yàlla ne du am njabar kaahin sahir xawlu shaytan mu ne du xawlu sheytaan rajim ñu ne seen waji ab dof la way yakaru yakaadu kafaru la yasliquunaka bi absarihim lama samiu dhikra wa yaquluun innahu la yàlla ne ma hu bi majnun kon yàlla moko dan défendre leerali mu ak dara gi mu am ci way yeb la serigne touba rabbi yalla waxoon ne maqaamaatu gayri alxalqi an gayri rabbihi mughayyabatun faltaqra an surat najm sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na darajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ku dul yàlla xamoo ko nee na boo ci bëggee xam tuuti nag na nga jàng suuratu najm yàlla di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day du waxee bànnee xam wa maa yantiqu anil hawa lu mu wax maa ko ko waxloo in huwa illa waxyu yuuxa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomu yàlla ne bu ngeen bëggee seen mbir jag na ngeen xam ne ci topp ko ci la seen mbir di jage وإن تطيعوه تهتدوا من يرنت بصلى الله عليه وسلم لم لن أنل بلن تأم قلات نم لن كو ديجي لجف لن كنانو وما آتاكم الرسول فخذوه من لب لم لن ترى بلن تخال سين بانه دبونا قلات دبو تخل ويوما نهاكم عنه فانتهوا نين كو باي فساس يرنت بابو صلى الله عليه وسلم نيون لول سل لول ماغ لول يالا بيندكو تي جن جاماتو بيند سبحانه هو الذي قد صور احسن تصوير واعطى صورا سيدي تبارك الله نانا يالا داي كو ماغ لا كو ييمي لا اك ماغ امو فمي يام موم مو بيند يونت بي صلى الله عليه وسلم ملال كو نكو نيهي نا گم جا رافت ملو نانا نلا يونت بي صلى الله عليه وسلم مل جوخ القران نلا ان ابن عبد الله فاق كل من ابداه او يبديه خالق السمن على الورى اصطفاه من ابداه رحمه كل بعد ما هداه sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na day doomi Abdullahi ji day na ngeen xam ne moo kawe képp ku mën a doon képp koo xam ne yàlla mas na koo feeñal ak ku yàlla nar a feeñale ci ñëwagut na ngeen xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko gën lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi nee na ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta am ñu ne ko ah ndax yàlla bind ko denc ko bañ koo feeñal mu ne sirran amul kenn kum bind di ko denc te sax day yan ak yonante bi sallallahu alayhi ak ku mel ne moom it musta am ba fawwu kon na ku mel noonu Sëriñ ba manel nañu ko de wan nañu ko bu baax a baax a baax a baax jàngal nañu ko bu baax a baax xamal nañu kan mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam damay wax ne cofeel gi mu soppoon yonante bi feeñal gi mu ko daan feeñal gis ku ni mel waaye waaye koo xam ne dem na bay àgg ci naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon dox ba dégg nar koo jam Sëriñ Tuubaa waxut damay àndale dégg de waxut dama naan ko moytul dégg bu mu la gaañ serigne touba nee damay lal tay sama lex gi gi jam ci yonent bi jaar ci sama ngam bi jaar qadi wiqayatun wiqaayatun lil mujtaba min shawkatin wama maa yudaaha koku fam agon ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam kenn kenn musu fa àgg di nee na moom yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy dinem diineem diine ya xubbul Mustafa la ghayr neena man beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moy sama diine soxlawuma lenen beuguma lenen ma leneen cofeel bu jéggi dayo ji amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu seesu gis ku ko am ci keneen may wax ne xool leen bu ma ay bu fekke woon lii ay bu fekke woon lu ni mel ay taxawaay ñan la cay taxaw lan mooy màndargaal la dana jéggi dayo mooy li taarix nett li sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu am na ku ñuy wax mu ma Musaylamatul Kazzaab di koo xam ne daf doon diir mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yonent la yonent bi di ab yonent kooku day faatu na ba am junni at ak lu topp sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doog a feeñ jamono waaye ba sëñ tubaa feeñee jamono jàng ci taarix ne am na ku doon diir mbagg sangam ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ca wax joo xam ne xalimaam musa bindu lu mel noonu ci doy waar lan la wax dana dalla musaylamatu xiina jaaraa dafa ne musaylamatu kaddaab torox na ñu ne ko lan moo tax mu torox mu ne dafa diir mbagg koo xam ne waa asamaan suuf kenn du ko diir mbagg amul morom ñu ne ko torox tànge gën la torox mu ne mi ngi torox tànge ni ma leen ko mooy ku dem ba ci diggu mbooloo mu amul ab ab lim bu bari tok nga ñew fekk fa ñu toog nga ko def awraw neen dem fa wanag tour fa ndox waaye adartu fi loo arabia mooy ngelawal wu ñepp dégg waye señ bi ne mu ngelawal fa ngelawal wu kumbu wa jahran darrata señ ma bañu jaay neena mané ko ah mbacké de yaakaaru mo na sa xalima dana yuut mu ne ku nonu sama sang ba do xam sama teggini xalima ku nonu sama sang ba doo xam sama teggini xalima kon kooku bu fekke won jamono gi ñuy ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan lay def lim daan bind guddi ak bëccëg damay wax ne pacte bi ñu toog di ko defee pacte bi ñu toog di ko defee muy daaral xudduus nekkoon pekkub Serigne Touba radiyallahu anhu nekkoon xolub Touba di xolub Touba boo xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu fii la daan duggee xalwatoom ya jaamu yàlla mi metti yi fii la ko daan defee fii la gisoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay melokaan bu ko yéem sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ahlu badr Cheikhul Xadim radiyallahu anhu nee na ba ma gisee ahlu badr manam amatuma menn xemmemte amatuma ben bëgg-bëgg lul bok ci gaay mu wax sang mané ko man dé sama yitté yalla la moy na bok ci ñi rek yaron bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah ñi de bok ci mom faat ci caaxaan tax koo def gaal ko metti yu tiss nat yo xam bu nek yobbu na bakkan serigne touba ne man de bëgg na buñ ma téyelee bakkan bi dal rox pas-pas bi ak pëstéef bi ak jom gi dana ko agalé fu mu jom fii la jëlewoon engagement boobu mu xamoon ne ñaari kaaraange ngi fi yoo xam ne fii ak mi ngi fi nekk lor du jugee ci fenn ñëw ci moom ak ci moom mooy Touba daf koo sëñe aar ko ba lor du jugee fenn agsi ci moom muy benn ñaareel bi mooy sëriñ bu soobee bi nga xam ne dafa jubóog borom subhaanahu wa taala saa bu natt yi naree ñëw bu ñaanee yàlla natt yi daal di jugee waat mu ne ko ñaar fii ak ñu ngi fi natt bi du agsi sëriñ Touba radiyallahu anhu daal di xam ne kon na génn Touba ngir gàttaloon natt moo ko gënal toog fu koy aaree ba natt bi di agsi ndax natt lu mën a rëy rëy lam tey ëppal doole mu génn dem Mbàkke Bari ba mu fa amee ab diir sëriñ bu nelaw mu del si jaaree sëriñ bu xam ne léegi nag nattu baa ngoog agsi moo ko atlu di waaye fii la déparé woon fii la waaje woon di daaral Xudduus ba mu demee ba ñëw it lam doon wut leeral na ne am naa ko ndax moo ne xat sirtu bil muxtaari kal jaare abou bacrin sadiq ak Omar ibn Khattab ñu sekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tëdd ak moom fa mu tëdd fañ daraja dañ ag ak fañ nekk ci mom ak daye bañ ag mujj naa fofu la nekk ma man fofu mu ne fofu la nekk waye dara jooju jojo nak bimu ko amé téewul fu mu tollu mi ngi woné dara daraja yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di woné diine yaronte sallallahu alayhi wasallam di woné ànd ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam njariñ lu am waye nak kep go xamné won nga ginnaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mbugal ak lay xam innal ladina kafaroo وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل منهم من صريد شارب sëñ Tuubaa nee na ku woon ginnaaw diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wedd ko lank bañ a tuub na nga xam ne sag faye ngi ñëw ñu ne ko luy ak fayam mu ne seen biir yi day ay jaanaki jiit ñoo koy dëkk yomal xiyam fa akbar bu ñu soxlaa naan dëtti wànjar lañ leen di jox ñu naan ñu ne ko waaye ku topp yonent bi leen ngay def mu ne lil muslimina ولكل ولكل مسلمات للمسلمين ولكل مسلمات نور الذي اهدب اهل المسلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون نانا كو توب يونت صلى الله عليه وسلم لير غاي نيو سيو كيب كو خامني بروم لندم لا بولا جيغي لير غاي لا كوي داكول با ديف اك سيو نانا نيوم ني توب يونت كو توب يوم القيامه ياي بيل سي ديجي الجنه نانا سونو يونت بي ني نديب yaakaar yoo ci yaakaar yomal xiyaam da nga ko gis rajaahum muhaqqaqun wa malikun fii abadin maa laa yarahmani nee na liñ lay fayee yomal xiyaam akbar ab buur du ko mas a gis ci àdduna ndax lan ndax loo yaakaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa bul yaakaar lu ndaw yaakaar lu topp loo sopp da nga ko am ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jàngale na bu baax a baax kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci tënk ak bañ a guddal lool ndax xam nañ ne bu baax a baax waxtu wi xam nañ yéene yi xam nañ yëpp waaye li ñu jeexale mooy moom sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon na lu leer nee na woon day aqsamtu billaahi inni lin nabi abadan xillan wa xibban wa maa yaabaahu aabaahu nee na man day maa ngi giñ yàlla wallaahi lu mu wax rek na mu ko waxee ne lañ koy gëmee jëru giñ waaye mu àgg maa ngi giñ yàlla ma bind ne man day fi ma xas yi fas yéene nekk mooy nekk soppe bi yonent bi ma ko xool kon mbokk yi nañu xam ne ak lu man di xew tubaab yi théorisé ñuy théorisé gëmloo guñ ñuy gëmloo seen bopp boo jàngalee seen buru ak ni ko ñu sëriñ bi waxee pas-pas yi ñuy jox yaakaar yi ñuy yaakaarloo sëriñ Tuubaa moom xamoon na leen moo tax ba li ñu nekk nekk seen biir jamono gi nekk wax ju ñagas la daan wax ak ñoom ndax gëmuñu yàlla xam nga ne waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun la ay xoole ji waay yéene la koy waxee yéene yéene la koy waxee genn gi doyoon na waaye ku amul pas-pas moom moom moom lenn rek mën a konti yitteem mooy ku dugg rek ku dugg maanaam ku duggul mu bañ la ku dugg mu bëgg la lahu tadarra'tu fiikum mubghidan lakum maa lam tatuubu lahu wallahu qad shahida bu ngeen bëgg bu leen dugg rek ma leen di bëgg waaye fii dugg leen ma leen di bañ yi ay kàddu la yoo xam ne dañu joxoon ndigal ñu ubbee xam naa insha allah taala bu ñu joxee eh, sëriñ sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu mooy ki nga xam ne insha allah taala mooy ñëw fii moom it jàllale ay ay kàddoom ñuy xaarandi insha allah taala seex moom dama topp israh sadri wajhal jihaadi ka yawmi badri bokki jullit yi fi teew ñi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ seex mati lay mi nga xam ne moo fi nekk kilifa jiite njabootu sëriñ Touba gi ak yoonu morit wi yépp di nuyu mbooleem njabootuk sëriñ Touba gi ak mbooleem taalibey sëriñ Touba yépp di am mbégte mu rëy ci jataay bu mel nii ñu war koo amal fii ci dëkk bu sell bi di dëkkub Xaadimu Rasuul ndax li waral daje bi ak bokk yi nga xam ne yëngu nañu ci fan yii yépp di ci dox di ci liggéey ngir wañcee feeñal taxawaayu yoonu murit wi yépp ndax ki nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa woon ci léppam ndax lii ku ne xam ne ne jëkkul tey ndax am na yuñ fi jëfoon ci at yi weesu la ca waroon ci taxawaay jullit ñi taxawe nañ ko rawatina yoonu morit wi nu nekk ndax ku ne xam na ne morit moom bala ko kenn mën a nekk da ngay jëkk a nekk jullit ba noppi kon ki nga xam ne moom la yaakaar muy Seexul Xadiim ki doonoon léppam ba tax mu waxoon ne lil mustafa nawaytumaa yu jaddidu sunnatahu lxarra indi inni ahmadu kooku la noon bi wëlbatiku jëmale ci moom ay jëf yu ñaaw kon képp ku bokk ci njabootu sëriñ Touba war ngaa taxaw naqarlu loolu loolu moo waral daje bii ñu amal ko ci ndigalul kilifa yi ànd ko ak jullit yépp ndax xam ngeen ne fii nu toll ci àdduna bi bari na jullit yu koy naqarlu lool ak fii ci réew mi waaye ku ne xam war naa xam ne waa kër Serigne Touba waruñu cee des gannaaw jullit ñi ci seen bopp am na fu ñu leen di xool saa su nekk nit ki nag bu amee fum lay xool te lay xool doonu lëgën lëgën a jaadu mooy yow nga xam sa bopp te fexe ba bu mu am dara lu lay mën a joxoñe waaye gis nañ ci jamono yi rek ñoom bi ñuy def seen manifestation yooyu ci Paris am na ñoo xam ne ay jullit lañuy tuddoo te teewul ñu dem àndeek ñoom ci ay xalaat donte wane nañ ne bokkuñu pas-pas itam mel na ne bisum mbégte ma ñoo ñoom a ko ànd kon nag loolu lu mat bàyyi xel la te ñoom lañu nekk ña nga ca te duñ ca jóg ba mukk ndegam lañu nekk gëm nañ ko te duñ ca jóg ba mukk kon bala ñuy mën a tàppaas jullit ñi dañuy am lu ñu gis fi barab lañu gis nag ba tax ñuy tàppaas jullit ñi te di leen yàpp waxtu wu nekk yaakaar naa ne ci biir ñiy tuddoo jullit te seenu jullit sellut foofa lañ koy kon ta baxel mooy julit bu nek nga gëna sellal sa diine gëna sellal na ngay taxawé sa diine ak na ngay samé sa pas-pas ba dara du ca fecciku loolu lu ci am solo la ndax bu fekkee sa yu ñaaw ñaawteef kenn ku ne na nga mané rek ca ngay taxawé ndax li yonent bi alayhi salaatu salaam man raa minkum munkaran falyukhayyirhu fa in lam yastatih fa bi lisaanihi fa in lam yastatih bi xalbihi wa kon ñoon ci ñi ngi toll ci yëkkati ci suñu kàddu foofu kon fi la suñu pas-pas toll ci man gee faj ba bam koy weesu kon nag nañu bàyyi xel ci ne bu ñu gis kenn koo xam ne daal yaa ngi tuddoo jullit ba ñuy am fu ñu mën a jaar ci yow di gën a tuutal jullit ñi ak di leen xeebal seeni pas-pas ndax ñoom loolu ñu defaat fan yi jëme ko ci jëme ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu ku ne xam na ne ak tapas gu mag a mag la ñeel jullit ñi kon jullit ñi itam war nañu gën a xoolaat seen bopp gën a téye seen pas-pas gën koo sàmm ba kenn du am lu mana leen mën a joxane ci seen wàllu diine loolu nag képp koo ci xam ne nga ci njabootu sëriñ Touba di di dund yoonu morit waroo cee des ginnaaw ndax sëriñ Touba ku ne xam na ne nasaraan boobu ñii di def yi yépp seeni maam ñoo àndoon ak sëriñ Touba di ko fitnaal ngir bëgg a fay diine bëgga a nasaxal lislaam waaye sëriñ Touba ku ne xam na ne loola ba mu ca wéetee gis ngeen la nga xam ne moom la wax ne ñoo ko wéttali woon mooy rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hiina adooru kon kooku ñooñu la wettali ko woon ba tax mu nasaxal tubaab bi ba tubaab bi échec googu ñu échecoon ci sëriñ bi ci jaaxle ci moom tële ci ba léegi daf leen a naqari daf leen a metti kon nag nañu xam ne nun nii nga xam ne ni lañuy ñuy sàmmee lépp loo xam ne mooy ndonal sëriñ Tuubaa li ngir ñu bañ kenn ku ko salfaañe kon noonu lañu ñu war a taxawee nag ci lépp loo xam ne mooy sàmm diine ji te di ko sellal ndax loolu mooy li nga xam ne ci lañu ñu mën a daje ak bëgg-bëggu Serigne Touba ndax sëriñ Touba ku ne xam ne fi mu tegoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam koo xam ne dundam ak dëddoom ak njabootam ak léppam mu ngi ci doon dàkk jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam njabootam mu duppee leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ku ne xam na ne murit taxawaayam ci wàll googu war naa ràññiku bu wér a wér wér ci biir àdduna bi rawatina ci biir réew mi nu nekk kon nag li ci am solo daal bari na luñ ci mën a jàngate lool waaye bi ci jëkk nag